xale bi xew si jamono fu mu tol ni waxoon naa ko fu mu toll ni Sénégal ñëpp moom la ñuy xool xoolal ma lii xoolal ma lii sëñ Fallou bi maam Ndiaye sa wàllu des bi sa sànn bi. Mame Ndiaye Savon yow fi yàlla teg de neex na Mame Ndiaye li nga def si bés. nii laa def si bés sëriñ fa eh, yaa ñëw kay nii laa def billaay nii laa def lii mooy première attaque sëñ sëñ Fallou jaral nañu ko. ñoo nekkee di attaque deuxième attaque nan la nar a mel Mame Ndiaye. waaw ñun sëñ Fallou rek laxasaay rek taluñu tey taxoor taluñu sañca tey nañu berneel gani rek sëñ Fallou rek a ñu ñor tey tey sëñ Fallou rek a ñu ñor sëñ Fallou. ñu sànq fee leen toll avant koñ bi lañ dégg xale yi di yuuxu maam Ndiaye savon maam Ndiaye savon yëg naa fi sax dem nga ba jël ay mayo dënd ko xale yi ñu bind si maam Ndiaye savon lu doy waar. xale yee ma bëgg barke xale yi dañ maa bëgg na xale yu ndaw yi sëñ Fallou moo ma wis xorom xale yi ñoo ma bëgg sëñ Fall dégg nga dëgg la kontaan naa. mais si bis bi nga ñëw nga organiser sa mbooloo mi yëpp ñëw. yëg-yëg kontaan yëg-yëg. billaay yëg-yëg ak kontaan rek laa ci am. waaw ñu xool añ rek ndax xale ba maa bëgg ñu berneel gan yëpp. Ah, waaw incha allah. xarit topp ko mu daal di ànd ak ànd ak moom xool li mu sañ sa noir ba la def xale bi ni mu tudd. waaye lu mu sol lu mu loolu waxal eh, moo eh, yaa ngi koy am boo bëggee ñu topp si biir ayca booy ah maam. acca mbokk internet yi ngeen fu mu toll ni nak gis ko sa dafa jafe mbooloo mi ñëpp ngi ci yow. yaay sëñ Fallou jekk gay dégg ngeen lolu amati nga ndam. déggal ala amati la ndam. mo ngi xol gani nekk amee nga ko njukkal da saan ba deux heures du matin waaw ñëwal ah, xool maam Ndiaye li mu organisé xale yi ñëpp ñëw ndeysaan lii sëñ Fall léegi moo ko fay nee naa lii sëñ Fall léegi moo ko fay. loolu daa leer sëñ Fallu rek. lii sëñ Fall ndeysaan rek ak borom bés bi borom bés bi. moy borom bés bi. waaw mooy borom bés sëñ Fallou turandoo moo nekk ni macha allah bi muy judd nag moo fekk fi dara macha waa bi mu juddoon nag sëñ Fallou moom may nañu lépp nag macha allah nee naa la bu ma santee yàlla sant yonent bi damay sant sama ñaari waaju teg ci sëriñ Fallou ndax sëñ Fallou teral na ma teral na ma macha allah damay ñaan mu yokk rek. ndax bi ma ko amulee aw ma woon dara te léegi maa ngi sant yàlla bu baax a baax sëñ Fall looy wax reetaana <laughs> ah balaa bi xaar tuuti ba may sëñ Fall kontaan ah, ñu suñu micro bi di am barke sama yaay a ngi nii ma kenn ci àdduna fàllaaw bu somu ci kàddu rek càmmiñal ma rem bàyyi Abdou Karim moma def ni ma mel neena len buma fi jógee tay yalla buma amati dara luma am tay na na jeex ndax bisu seigne Fallou bi na ñepp ñew invité na ñepp ci jouru Kazu Rajab bi xam nga su neexon dem Touba waaye ñi dess fi lay lay teral ci kattanu yalla ak mbaaxam contane na mais xalé yi nga ñew xale yëpp yu waa xalé yi ñoma bëgg xalé yi jang wax sax man lañuy jangé wax ma sha allah lool yombul yombul nit ñi ma bëgg macha allah damaa kontaan torop sax. ñu bàyyi naa xool gan yi. ma xool gan yi yaay suñu fàlloo ngoog. ndeysaan. jërëjëf Serigne Fallou ne ñëpp dañ fi jaar rek ah jëm ci sëñ Fallou romb sëñ Fallou mën nañu ko Touba laa jëm nii. tabarakallah waaw. Ah, ah, waaw papa mu ngi doon waaw baax. Ah. maa ngi fasante ak yow wëllëre te keroog bi ñuy liggéey jumaay Touba ji maam Seck Fall Eh, sëñ Tuubaa dina yett yi ko dikk dikkalan lim doon jaay ak lim doon dénkaane ak lim doon maye nee na lim doon dénkaane dénk na ko maam Cerno Birahim lim doon jaay maam Cheikh Rafal jënd ko lim doon maye may na ko maam Cheikh Anta sëñ Fallu nag dafa jaay njureel fi mu ne jumaay Tuubaa xeer yi sëñ Fallu santaan ca ndokk ñu di ko góor di indi maa ngi ñaan si bis bii yàlla na yàgg lool ndax keroog bi ñuy dem Makka maam Thierno Ibrahima di leen a ñaan la sëñ Fallou maam Cheikh Anta sëñ Mbacke bu bi ñu demee ñu ne sëñ Fallou loo war lu mu ne aj gi ba ba ñuy dellu si kenn du faatu mam Cheikh Anta ne lu waay soxla nag ko laaj moo koy feree sëñ bu Bousso ne buñ demee lu naar yi fàtte ci xam-xam nañ ko ko laaj ndax sëñ Touba def na ko ci moom Cheikh sëñ Touba yi rek dafa doy kon maa ñaan si bis bi yàlla nañ ko yàgg a taxawu ba defi ay nag ak te ñëpp féete ko ci barke Gileem waaw te rafet na ci njort mboolem Cheikh Sëñ Touba yi barke bu Sëñ Touba masal dafa Cheikh boobu yal na wàcc ci bis bi sa fan gudd lool yàgg sa njaboot ak ñi nga àndal ñëpp barke Sëñ Fallou Sëñ Abdou Karim yàgg fi lool ndax Sëñ Touba ci boppam lim na àllama ni rahmaanu fi safina bi ànd ni xadimu fil madina fi mu na màkk képp koy dem màkk ak koo mën a doon ak foo mën a bàyyi koo sa paas di nga ko ba mu mat sa paas di nga lijjanti ba mu mat ak yaa mën a xam foo mën a xeetoo waaye sëñ tubaa rek la yàlla may kaay lekk ngir yàlla kaay lekk ñu fay la armeel yu joxe dépasse dafay seeni worom sëñ tubaa rek ko am kon bi ñu ngi ko àndal yàlla na yàgg te ñu fi teew yàlla na fi teew déwoon sama xol seet na lool barke sëñ tubaa jërëjëf aca kàddu yi rafet na mbokk internet yi moo ngi noonu maam Ndiaye sa boo ngi noonu ay dëkk ndoomam ay magam maa ngay dëgg yërë ba sax <laughs> dégg loolu

kii ba ci neexul waaye fi ma ne sunu maam ji fu mu toll moom bu di baaxul waaye daa bëgg gis kii di maam. ci barki Seydina Mohamed. ah màggal gi yàlla na nekk màggal yu bari ci yow yokku ba yëg ko waay jërëjëf waay waay yàlla na yàlla fa jërëjëf waay man ko jërëjëf waay yàlla na yàlla fay la amiin yàlla na yàlla fay la waaye nee na la bëgg a gis ndeysaan mu doon loo xam ne lu doy yaram la maam tiit te na ko lool daal di koy bokkal <laughs> ni tooñ de. ko kaay nee ko boy acca mu tuuti nag comme ni ma la waxee affaire ba xaw a seere armée bi mu la wax naan ma 这个这个